jigi dama koy euh, nuyu sama sœur la dama koy nuyu di ko euh, féliciter pour sa dignité son endurance et surtout sa résilience parce que nag euh, ni ma waxtul ni ma ko waxee keroog moom laa rappelé waat mooy c'est la première femme mm-hmm. bi nga xam ne nguur gi tongal nañ ko xam nga ñoom wax naa ne Ousmane Sonko malheureusement il se sert de la justice pour régler ses comptes politiques personnels. Et malheureusement aussi, il passe commande. Et malheureusement, ce à quoi on assiste, moi, la justice se laisse faire. Et euh, c'est très, très, très dommageable, très préjudiciable. je euh, réew mu toll nii ak nous avons ñu waxee woon rek ne buñ ñëwee dinañ fexe ba joug bi nga ci kaw justice ñu fexe lever ce joug là mais ce à quoi on assiste, moi, en sept mois, le musulman de la presse, le musulman tout court de la liberté d'expression. Hmm. Tentative de la euh, l'histoire a prouvé que fille Sénégal, mais Sénégal, pour le cas précis qui nous intéresse, nous mën emprisonné jëmm mais emprisonné liberté Nous, hmm. ñun sénégalais yi hmm. avons waaye ak ñoo bari jom ak ñoo bëri fulla hmm. mais surtout kenn ci àddina mënuñoo noot kenn mënuñoo teree wax li ñu war a wax hmm. fi ñu ko war a waxee ak niñ ñu ko war a waxee kenn mënu ko ci àddina hmm. la preuve moom Ousmane Sonko li fi nekk yépp li mu wax moom Ousmane Sonko moom li fi mus a wax kilifa diine wax ko ci ay kilifa rek tout court wax ko ci ay nit kese nit dina dund ba dee kenn du ko kenn kenn du kenn kenn du ko jege personne légale sur le terrain des invectives et de l'irrespect personne au monde le respect nag ñi Nous si les institutions qui euh, les diine yeeg euh, euh, ak yi ni mel comme c'est un apprenti dictateur nga peut tout ce qu'il veut à l'image des moutons qu'il a rassemblés dans son parti politique le PASTEF mm. qu'il transforme tous les Sénégalais en un troupeau de moutons dont lui sera le seul guide et le berger. Hmm. Évidemment, initiative vouée à l'effet. Initiative mornée parce que, tout simplement, comme je l'ai dit tantôt, euh, le Sénégalais est profondément un être libre. Donc, Diego Diop, hmm. euh, moi, une seule femme, hmm. l'une des rares femmes qui apparaît, son nuitamment matin midi soir sans relâche Ousmane Sonko ak ñi mu àndal. Mhm. Jéegu Diop bu yoroon lu ñoom la Diop yor. Mhm. kon nuñ ko toppee ci ay trente million trente millions. Mhm. defe naa moo gën a néew lu ñu toppee doomu aadama trente millions. nga xam ne man pauvre man bu mel ne man mii sax bu ñu ma laajoon trente millions ma génneel ko waaye xam nga boo bëggee toroxal nit. tamit ci ci toroxal bi nga toroxal doomu aadama nga nappaale yeneen doomu aadama yi pour ne ñu ne ah yii dafal nànk mm-hmm. léegi boo waxee ñun ñu dugal prison te xamul ne moom Ousmane Sonko moo banaliser la prison mm-hmm. Ousmane Sonko mm-hmm. moom ba mu duggee ba génn rek bien que sax moom prison tour bi rek la ndax moom kenn ku ne xam ne ne hôtel la jaar pavillon spécial tëdd fa xalu ko ba xolam sedd sona dong la fa deful ak jacuzzi Mm-hmm. waaye bu mu jógee foofa fu mu dem hôtel bu nekk ci biir Cap-Manuel mm-hmm. fa tëdd au calme mm-hmm. wax dëgg yàlla dara ba mu génne dama wax na ko ba mu génne wax na ko te ba mu génne boo ko xoolee xool Bassirou Diomaye Faye da nga xam si ku nekkoon prison ak ku nekkoon ci hôtel Bassirou Diomaye Faye yéen a ngi fàttaliku ba mu génne nu mu mel gën a wow kong gën a ñuul ñuul kukku kay gën a ñu wow kong Bassirou Diomaye Faye gën a wow gën a ñuul kanam gi gën a niin waaye xool leen à côté mu sell ma rek ba mu génnee génn rajeunir teint bi delli mel ni ko doon def gommage wala dara est-ce que sa est-ce que sa daawul gën di échappé di dem def dafa ci ay gommage yu kenn xamul donc quelqu'un comme ça nga xam ne xamul qui n'a jamais vécu les rigueurs carcérales ku jóg moom mën na la yéene prison ndax moom bu prison Bassirou Diomaye Faye mi nga xam ne nii dugg na prison dëggantaan. Mhm. ba Bassirou Diomaye Faye toogee mhm. te maa ngi mhm. kenn plainte. bu soo dégg kenn te loolu c'est une première au Sénégal. Bassirou Diomaye Faye mi président de la République. ak article yi nga protégé ci suñu code pénal. ak Bassirou Diomaye Faye lu muy dégg du matin au soir bien que sax Bassirou Diomaye Faye sénégalais yëpp. dans leur entièreté mhm. lu baax rek lañ koy waxal te lu mhm. baax rek lañ koy yéene ndax contrairement ak moom Bassirou ki mu jàpp ne mooy yàlla am sur terre mhm. moom Bassirou Diomaye Faye Sénégal dañoo am si moom yërmande ak ñiimantal ndax na ñëpp dañu jàpp ne ku yaru la yar rek la wane waaye tey mosoo dégg fii kenn ba sept mois yi fi def mosoo dégg kenn yu tëj ko prison mu xalab Bassirou Diomaye Faye ñëpp Sonko la ñuy xalab mosoo dégg kenn Bassirou Diomaye fii la jour ba muy ba muy toog seen waajoo sant Faal kii Faal euh, tiktokeur bi kii xaw ma naka Faal. Azura Faal Azura euh, Faal Azura euh, Faal ah? mm-hmm. ni mu ni mu teeroo Bassirou Diomaye Faye pale mooy tifaare ko ay saaga ndey. Mm-hmm. waaye dara xewul. Mm-hmm. ndax Bassirou moom xam na luy prison. xam na la nekk prison moo tax yéenewul doomu aadama prison te gëm naa ne Bassirou Diomaye Faye dana fi nekk ba keroog mu fi jógee doo dégg mukk. ne Bassirou Diomaye Faye moo porté nit plainte pour offense au chef de l'État doo ko dégg mm-hmm. waaye la mu dendal lu soxor la mu dendal mm-hmm. te xam ne moom xamul prison mu yéene ko ñëpp te mm-hmm. yéene boo xam ne ñëpp nappaale sénégalais nappaaje suñu xel ba kenn ba ba ba ñaawteef yi mu fi nekkee ak télé bi nga xam ne moo koy caractériser sénégalais yi ñu mel ne man dañ ko wax moom bu sañoon ñu ñëpp ay mouton la ñu doon comme à Pastef malheureusement pour lui il s'est trompé de peuple et de pays. Quand mhm. tey une Diégui Diop mhm. une femme battante une guerrière une mhm. vraie lionne qui gisoo ko mu bata bata de jooy làmbatul bien que nag Sonko a a réussi quelque chose il a gagné une bataille mais Diégui a gagné la guerre Sonko la bataille qu'il a réussi Moi, Sonko moom la xamal la la gën a bëgg ci àddina toroxal la fanaan loola cave garde à vue bu doon benn fan sax boo ko fanaanee bu la ko fanaan loowee commissariat seen commissariat yooyu. ba dugg kaaf xol ba sedd na. Mhm. kii mooy Ousmane Sonko lii mooy mindset Ousmane Sonko loolu la. Mhm. fitnaal doomu aadama toroxal la. donc mhm. fanaan loon a jéggi def na fa ñetti fan je crois. si jigéen. mère de famille. Euh, si si mané vendredi le fa voilà vendredi je ba ba suba jour je mhm. pense. Mhm. Euh, xoola mu fa. Mhm. ci conditions yu yu inhumaines. ndax sagam góor ñi ñoo dul di ak di di wax condition yooyu way jéegi dégg ko. tey li nak ci l'observateur il pas xam nga nek fa di joy si son sort. waaye sagam goor ñi man nga yàgg naa dem cave mm-hmm. xam naa ku ñu téye garde à vue mm-hmm. fanaan loola ca cave nu mu mel ndax cave la ñu ko toroxalee dañ lay humilier ci cave ma mm-hmm. ba nga xam na yow presque bu ñu nee mandat de dépôt maanaam dañ lay yóbbu prison yow da ngay ku ñu yóbbu prison nga nelaw da ngay sonn nee naa ba ki demoon Ndiaye sama mag ji Lat Diop ma koy nuyu bu baax di ko sant di ko encouragé sama magu bopp boobu di nuyu waale commissaire Kayta i massa waale ay mbokkam ak sama sama mag Amath Suzanne Camara Lat Diop ba mu jógee cave tribunal ba mu jógee si gardage yi retour de parquet yi mhm. ba mu duggee première nuit Lat Diop prison de Rebeuss danoon nelaw mhm. ndax son ku dugg ku jógee cave ku jógee euh, garde à vue wala retour de parquet mhm. commissariat yooyu ku fa jógee ba ñu yóbbu la euh, euh, prison da ngay soulagé ñii ñi Bassirou Diomaye fay seen assise de la justice waxon waxoon nañu fi ne bu ñu ñëkëti mooy retour de parquet parce que existé wul ci suñu architecture judiciaire mm. ay nit ñoo ko fa dugal pour toroxal doomu aadama mais Ousmane Sonko en abuse en use et en abuse donc Diégui Diop su ma nee Ousmane Sonko a gagné la bataille mooy li mu bëggoon am na ko mm. mooy fanaan loo ko ca euh, commissariat ya mm. il l'a fait waaye Diégui Diop a eu l' intelligence et le courage de gagner la guerre nu mu ko mm-hmm. gagner mooy dangay toppee yu ñàkk fayda ay vingt huit millions ay trente millions jéegi gor gi mu doon ak gaynde gi mu doon jéegee génnawaale ña fa nekkoon ñëpp parce que moom moo fay lu ëpp lii mm-hmm. te encore une fois et le signale je le précise mm-hmm. te doo dégg nag bu weesoo seen officine yi mais doo dégg kenn ci waa justice ñu war a wax wax jéegi joob vingt huit millions yooyu mu joxe loolu lu yoon maye la caution la Mm-hmm. daf may comme man mi tey may dem banque. Mm-hmm. yaa ngi dégg maa daag. oui oui mm-hmm. may dem banque di leb ji. ñu ne ma indi sa garantie. waaw d'accord. loolu kese la. fayul parce que dafa reconnaître ne moo sàcc sàccul dara. bu sàccoon nañu ko bàyyi bu dem. mais euh, preuve pour preuve Xaadim Ba. bloqué Afrique. tey nañ ko euh, retour de paquet ba taay kaaf xaar presque mu def na dix jours ci kaaf. proposé médiation pénale ñële bañ waa douane bañ. Mhm. mu proposé benn montant ñu bañ kon nekkul na ngay proposé ñu eh, rek ñu nangu la. Mhm. Mhm. mais boo gisee jéegi joo def lool parce que jéegi dafa xam ne kii daf ko bëgg a toroxal jéegi moo naa siisu bañ waaye bu siisoo bañ. dafa yor njaboot jigéen la. dafa yor njaboot du góor. dafa yor njaboot yor doom. yor lii yor yor la ca des. te comme Ousmane Sonko rusul toroxal jigéen. di ngeen ma am personnalité fulla ak fayda hmm. daañu na comme yow vingt huit millions yi nga may toppee sax mënoon naa la ko may hmm. ndax ñoom la vingt ñoom la ay millions titre bañ si gouvernement la ñu doog a am million Ousmane Sonko mii mi ngi dégg daali ba ka Macky Sall dàqee mu mu nekk opposition ci lay commencé am ay sponsor ci la commencé di laal ay million waaye xam ne da ngaa ci ay million màgg ci yaru ji di ñaan yàlla dee ji ay million tiitalu la hmm. trente millions Jéegi Jóob da koy ndékkee moo tax Jéegi Jóob génneel vingt huit millions ne damaa yor doom ci ne xeex la gis nga ko dem ba mu génnee mm-hmm. ña ko jël femm yo ko jël si ci bunt ba variéwul benn yoon ci ay waxam mm-hmm. kon dama ne Sénégal fii ni mu amee ay moutons qui sont regroupés dans le Pastef noonu la amee euh, ndaak ay mm-hmm. gor yu fi ne ay jàmbaar yu fi ne ñu am fit am fulla am fayda gëm yàlla sunu borom bi kese nag dénk ko seen bopp xam na Ousmane Sonko façon fitnaal bu ne mi ngi koy naal ñi mu jàppee ay noonom te kat kenn noonowul moom kenn noonowul ak moom da di

Euh, mm-hmm. Fatou ak euh, Mahadi mm-hmm. mais di gërëm surtout surtout encore une fois euh, sénégalais yi nga xam ne mm-hmm. ñi ngi manifester ànd bi ñu ànd ak programme public SNTV ndax lu ñu leen proposé macha allah ñu ñu aat yi moo suñu jëmm yi tamit fu ñu génn ci Sénégal démb nekkuma Dakar yenn ma fii damaa génnoon hors de Dakar waaye yàlla xam na ne tout au long du parcours ku ma gis sénégalais bu moo fa gis li ngay njëkk a wax si ñun li nga njëkk wax mooy. Mm-hmm. Aysatu yeey nga ñu. Mm-hmm. tu as eu raison sur mm-hmm. ba pare ñoom ñëpp kenn ku nekk démb am na kenn ko xam fu génn téléphone am wan ma dugg ci YouTube wan ma ne ma ne ma gis nga dama abonné Public SN TV. loolu sant yàlla la. dafay wane ne sénégalais yi ñu doon nelaw yeewu nañu ndax na Sénégal nelaw bi sax waxin la déggin la laaj. ndax ñëpp a sàngu waaye kenn gëmbul. kenn nelawul te dañ da di nag ñu nekk un peuple Nous bañ nous sommes un peuple organisé. Mhm. extrêmement mature le peuple sénégalais est plus mature de et de loin que les hommes politiques qui prétendent le diriger. Mhm. dañ a pas ak organisé tey seen carte d'électeur Bible, 17 novembre nous nous, nous.